fekk na boobu Malick Gakou partem génn ci coalition au pouvoir mais loolu tamit loolu tamit ba mu génnee ci coalition au pouvoir. da koo néewal doole fële baat. mu néewal ko doole <laughs> te am na sax lu xewoon ci jour boobu je me rappelle jour bi ñu war a voté Souleymane Ndéné Ndiaye. jamono yooyu il s'est fait inviter dans une radio de la place. mais continuer di battre campagne contre quasiment Malick Gakou pour yow nga jàll. bay wax bay wax ñiy voté di leen. amul leen ci football bi. di fal président boo xam ni. bokk ak nguur gi bokkul nguur gi jëm jëm. on se rappelle donc yow dafa mel ni. boobu jamono man man kon man kon man dama am destin singulier daal. man daal <laughs> dafa mel ni daal bëri na bëri na état bi aw ma carte xam nga taawee PDS nekkoon. <laughs> aw ma carte parti léegi Benno moo fi nekk. mais pour l'histoire jamono ji moment bi moment tam maa ngi dégg même wax yi ñu naan non euh, euh, état bi moom la àndal. et euh. puis bu fekkee ne état bi gis na nit ki baax na. pourquoi ngeen bëgg mu koy xeex. nekkoo candidat état bi. ah nekkoo le de l' état du Sénégal. man candidat football sénégalais laa. cest à tey mm. kenn gënuma légitime ci football sénégalais parce que yàlla daf ma may ma dem ci xëccoo ñetti yoon. Mm. ñett ñetti yoon bu may dem bii mooy ñeenteel yoon bi ñiy tànn chaque fois tu sais euh, lool tam dinaa si ñëw. parce que tam des fois il faut ñuy wax mm-hmm. kii. vous savez. Mm-hmm. on au Sénégal. Mm-hmm. on au Sénégal euh, Momar man. dama bokk ci minorité sànq ñu ngi wax séeréer. Ah. ma bokkaat ci minorité nekk catholique. oui c'est important. mais nekk si milieu boo xam ne football la. y a une majorité écrasante de musulmans. kon itam c'est pareil man loolu dama koy tiitaroo parce que moo tax maam. loolu mooy exception déglu ma moo ko tax am fierté nekk sénégalais te su ma dem si biti loolu laa ko indee. Mhm. munu ma neexal kenn fii bu fekkee ne euh, affaire du doole la ba gagné xanaa sama jëmm ju tuuti gi nit yi gis loo xam ne war nañ ma mun wóolu. moo tax ma toog fi ba léegi. Mhm. du dëkk xool leen bu baax autour suñu dëkk bi fii place su euh, euh, dirigeant chrétien yi ci biir football bi wala ci biir. Euh, poste yi donc moi aujourd'hui légitimité kenn mënu ko tere am c'est-à-dire mën nga ma nag bañ a bëgg di wax lu la neex di dem si réseaux sociaux yi di wax te loolu man yëngalu ma parce que li may wax toujours damay naan tant que sama tribunal de conscience. mu ngi may jugé ci anam yoo xam ne gisu am benn gàkka-gàkka bu may teg mm-hmm. war naa mun avancer justement ci tribunal donc loolu dafa am solo dafa am solo trop trop trop tudd tudd benn moo bu am solo tribunal confiance mm-hmm. xam nga li jaaxal nit ñi bii yoon mm-hmm. mooy man mi observateur li ma la mës a jàppee mooy homme de principe ak homme de parole te yaakaar naa nit ñi ëpp ci sénégalais yi parce que néew nga kàddu sa kàddu dëggu na niñ la yar xam nañ ni ku yaru nga mhm. donc nitu kàddu nga mhm. léegi lan moo xew ci diggante bi ba nga changé ba nga def wax waxeet <laughs> ni woon bële mooy sa dernier mandat ci diggante bi tey ngay ñëw di wuutuwaat pour toogaat ci président fédération looloo jaaxal ñu bëri ci Sénégal euh, maman eh, loolu ça ne resemble ressemble pas c'est-à-dire ba ñu xamoon mhm. ci tekk bi ci tey bi ci yaru bi ci niñ ko yare ak niñ ko mooñaale wax dëgg yàlla séntuwuñu woon ci moom wax waxet maman yaa ngi wax ñaari mbir yu bokkul mhm. yaa ngi wax jikko ak wax loo xam ne euh, gestion li ñu dënk la mhm. euh, dama bëgg di fàttali rek euh, Sénégal tamit